asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa koñ bi yëpp du nuyu aussi waa mouvement ànd liggéey suñu gox di remercier ñëpp aussi gis nañ tey seen teewaay si seen secteur bi di leen mës a coono te xam ne tamit li yombul woote ñëpp wuy si la yombul da leen di remercier te xam ne tamit li ñu tax a mooy ngir suñu gox baaxee moo tax mais du ku nekk dafa am intérêt déedéet amuñu benn intérêt suñu intérêt kay mooy li ñu def ba sukkali suñu gox loolu mooy moo waral lii. te aussi tey boo seetlee mouvement bi bi may première activité te aussi tamit réussir nañ ko ndax tey masse bi ñu soxla woon génn nañu wuy si nañu bon ñi may faral di gën a waxal nag jeunesse bi mais bàyyiwuma kenn nañ ñëw jàpp te xam ne lii pour ñun la. ñun jeunesse bi ñoo ko taxawal kon boog damay ñaan jeunesse bi yëpp ñëw kii na bu kenn naan damay xaar ñi woo ma ki woowuñu woo nañ leen kay mais bu kenn duñu xaar ñëwee leen kaay génn jàpp seen loxo pour kii te aussi di suñu papa yeeg suñu yaay ñu leen ñaan aussi ñu jàppale ñu ndax lii suñu gox dong moo ñu ko jaral. voilà merci beaucoup Souleymane bon ñu ngi sant balaa jëlee ci dañuy sant ñi fi teew ñëpp voilà am na solo bon mais mouvement bi. yaatu na yaatu na trop yamul xaar kese mais aussi nit booy bay da ngay tàmbalee si sa bopp donc loolu moo waral tey suñu première activité ñu commencé ko fii mais bu ñu nee mouvement bi xaar yàlla la yam ak ah, déedéet yamul xaar yàlla Grand Yoff la ñu dëkk Grand Yoff la ñu miin moom la ñuy jiitaloo donc les premiers pas la incha allah rabi dina gën a yaatu ba wax dëgg yàlla ñëpp xam ne mouvement bu dëgër am na xar yàlla voilà aussi koor gi am nañ euh, benn activité conférence am nañ activité conférence bi nga xam ne wax dëgg yàlla ci la ñuy def suñu lancé officiel mouvement donc ñi ci woo aussi mag yëpp di ci woo suñu yaay ak képp ku ci mën a jàpp parce que tey nit amul lu dul goxam tey nit amul lu dul goxam yaatu na nag mais ñu ngi sant li jiitu ndaw yi parce que tey lépp mën naa ni ñoom la peut am na suñuy mag yi fi nekkoon bëggoon ko yàlla def en donc tey bu ko yàlla dogalee suñu bon dañuy sant yàlla bon di féliciter aussi ñu ko initié fait lenn moo ñu motiver parce que tey bon euh, lépp loo gis rek dafa war a am jàppalante rawatina solide euh, kii euh, social c'est-à-dire loolu moo gën a tax ñu taxawal mouvement parce que tey fépp foo dem ci àdduna li ngi dox si social donc ñun bu ñu dëkkee fii aussi gis donte sax ay cas social rek mais war nañ mën a dimbalante parce que nit mooy nit mooy garabam donc forcément Euh, loolu euh, sociale bokk na ci li gën a tax ñu taxawal mouvement donc loolu moo ñu motiver pour euh, mouvement parce que tey da ngay gis bon quartier yu bëri ci Grand Yoff day am ay jeunes bon mais seen seen éducation du demee noonu donc mouvement bi aussi bokk na ci loolu xale yi nga xam ne seen éducation dafa raté donc am nañ ñu fi nekk ñi nga xam ne mën nañ leen jël recadré waat leen donc ba tegaat leen ci yoon daal voilà wax wax nga lu am solo voilà donc financement moom fu mu toll nii suñu doole bopp la ñuy demee métti trop nag wax dëgg yàlla bon fu mu toll nii amaguñu dara parce que dañuy doog a door mais nag wax dëgg yàlla ku ñu ci fekk jàppale ñu ku ñu ci fekk jàppale ñu wax dëgg yàlla ñu jël parce que soxla nañ ko soxla nañ ko bu baax a baax. waaw d'accord bon Grand Yoff comme Grand Yoff la concerné bon autorité yëpp duñu sax lim. Euh, wala bu ñu limee rek kenn rek la ñuy lim donte moom mooy moom il est le premier magistrat muy le maire voilà ma jóob jóob moom ñu ngi koy woo mu ñëw jàpp ci mouvement parce que intérêt Grand Yoff la Adama Faye euh, ku cité ñaar ñooñu rek euh, cité nga autorité yëpp ak Cheikh Bakhoum aussi ñu ngi koy woo Cheikhou Kouyaté xar yàlla la bëgg donc ñoom aussi ñu ngi koy woo Ablaye Diop aussi ñu ngi koy woo waaw loolu aussi am na solo bon ndaw yi nga fi gis mais lu mu ëmb bëri preuve la preuve lii rek ñi ay mag la donc lii day wan ni mouvement bi donc yamul ci ndaw yi rek ñoom aussi dañ leen di jox micro bi ñu andi seen contribution. sant maa ngi tudd Khadim Gueye comme nga xamee bokk ci koñ bi dëkk fii ñëpp. bokk aussi tam ci association bi parce que comme ci koñ bi la ñuy wax euh, ci koñ laa boo kon maa ngi ci association Euh, depuis bi ñu koy créé maa ngi ci peut-être peut ay tuuti réunion mais maa ngi doon am ay échos ci may mu ak quelques ñi nga xam ne ñu bokk ci affaire bi quoi. et puis aussi activités yi ngeen di commencé déjà c'est une première comme ni ngeen def nii euh, ay activités yoo xam ni euh, ñëpp la concerné parce que set moo jiitu ci lu ne. looy mën def ci àdduna nga commencé ko ci yow fi nga tàmmale fi nga dëkk ci moo gën ci leneen loo mën ci def. et puis euh, dañu lii li dafa nekk loo xam ne ko war a yaatal par rapport ak yeneen koñ yi nga xam mooy parce que xaar yàlla ngeen wax sama juml ndax xaar yàlla nekkul benn rëtuni kese quoi xaar yàlla bon c'est tout une kon dañu yaatal affaire bi comme c'est une première mu baax bu nekk benn lancement boo xam ni dañ ci wane ñëpp li nga xam ni moom dëkk et puis ñëpp ñëw ci et puis man aussi dinaa woote dinaa woo grand yi nga xam ne ñooñu ñooy nekk suñu grand ñun pour ñu ñëw jàpp ci affaire bi comme ni nga koy defee dèjà comme seen grand yi ngeen gis ak nga xam ne xëy na même dëkkatuñ ci koñ bi mais lépp loo xam ne xew ci koñ bi da leen di concerné loolu lañ ci loolu lañ ci taxaw. aussi tamit euh, dama bëgg ñu am beneen ouverture boo xam ne am nañ ma ko jotoon wax parce que amoon na benn association boo xam ne mu ngi tudd benn bopp man ci laa bokk mais tamit ma bokk ma bokk fii. dama leen woowoon pour ñu def benn collaboration ak yéen ñëw jàpp ci liggéey bi mais comme que dafa fekkoon ngeen def réunion te mënoo doon jël beneen euh, décision boo xam dafa euh, concerné ñëpp daaw réunion amul ci diggante ñëw mais prochaine fois boo leen defee beneen euh, activité ñoom dañuy ñëw ànd ak yéen. donc léegi en tant que frère en tant que frère mouvement bi ay jeunes ñoo ko teg booy engagé pour seetal gox bi pour seen seen gox jëm kanam loolu lan sa message ci jeunes yi nga xam ne di encouragé motiver leen parce que yàgg nga ci kon bi comme ni nga ko waxee sànq bokk nga ci ay ay mouvement yu bëri doxul lan moom moo tax mouvement yooyu doxul lan ngay conseil booy ba mouvement yooyu du mun a jaar ci foofu ban conseil ngay jox sa petit frère yi quoi naa wax euh, lu may wax ci li may wax ci yéen. Euh, d'abord balaa may wax euh, conseil dafa am benn historique bu ndaw mooy indi je boo leen xoolee ci koñ bi am na quelques pono benn wala ñaar yu nekk te ça c'est pas fii am na fi màgget bi nga xëy na xam na ci dara loolu yàgg na am ñoo xam ne juddoo ko leen fii loolu yàgg na seet satal bi fi xewoon rek ay monument boobu jamono loolu moo xewoon lii dafa ñëwaat rek mais li ma leen di conseil mooy ngeen def ko autrement dañ koy def autrement bu leen rek sama koñ moom moo concerné déedéet parce que ñun seen vision passé na loolu fexe leen ñeneen ñi def comme yéen cest à benn affaire bu baax nga koy def yoo kese amul sens mu jël la yow lan ngay fexe ba inspiré ñeneen ñi ñu koy def comme yow nga nekk benn moteur de déclenchement loolu moo ëpp solo ah. fexe leen daal ci rajo laay woote ci yéen ngeen jéem a avant tout ñu ngi leen di gërëm di leen sant bon di leen ñaanal bon ci action di ngeen def. action bi ngeen def dafa doon loo xam ne nii lu la mais comme on le dit euh, nga koy exiger dara action bi dafa am loo xam ne da nga koy apporter lii nag dafa bokk ci apport bi nga xam ne nii bon man je pense que loolu la ñu defal réew mooy lan bala ngay exiger lii ak lii laa bëgg action bi dafa li nga xam ne nii moo la wax ñun fu mu ne def nañ suñu devoir mooy lan mooy dans un premier temps par rapport à nos moyens action bi organisé fii nii mooy lan mooy te ñëpp xam nañ ni propreté dafa bokk ci ci ci ci loo xam ne nii bon ci développement wu réew question bi même nit parce que parce que euh, nga koy jaam da ngay set waaw boo jógee fii di dem jumaa ja te setoo yaa ngi traversé ay problèmes kenn xamul loolu bokk ci xam ne nii dañ koy rafetlu bon de deux euh, man li ma leen di ñaax surtout mooy innovation comme ni ko Guèye waxee te innovation yi man man à niveau mooy lan mooy suivi bi waaw c'est pas parce que def nañ ko tey rek. Euh, après dañu mën a baisser les bras dañu war a xool fu nekk indi sa apport parce que mbir mi du question ni kii mag la kii xale la xel la ay solution la waaw ku ci nekk boo amee solution boo xam ne dañ koy apporter par rapport au travail bi nga xam ne nii commencé nañ ko def tey wala par rapport au mouvement bi ngeen xam ne nii da ngeen ko créer état bi man je pense que dans un premier temps mais pourquoi ne pas créer par exemple au niveau de xool naka la ñuy par exemple s'il y a quelque chose qui se passe niveau du coin actuellement bi qu'on se repasse directement au niveau du groupe moom mooy gën par exemple lu demee noonu man c'est des idées comme ça actuellement bi sa à dire que ñu jëm ko adopté actuellement bi à l'évolution par exemple dans la société moom bi ñu jëm que bon jumtuwaay yu bees yi nga xam ne yàlla teg na ko ci loxo nit bon mën nañ ko utiliser parce que bon ñu jéem a nag xool yeneen mais li lépp loo gis nag étape par étape waaw am na ay étape yoo xam ne bu ko sotee rek bon mën nañu yóbbu feneen waaw li nga xam ne nii créé nañ ko par exemple muy mouvement bi man je pense bu fekkee ne dëgg nañ ko liggéeyee nañ ko question bi nit ñi duñ ko regretté man daal loolu mooy li nga xam ne nii euh, laa amoon lu ma ciy wax quoi waaw maa ngi leen di sant ànd ñoom ci liggéey bi ak loolu lan moo bi ak bonne confiance nga ñëw accompagner ndaw bi. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen sant asa man gëmuma association doo si faral di gis jigéen parce que jigéen ak góor ñoo war a liggéey Sénégal ñun ñëpp ñoo ko moom réunion bi ñu njëkk a def sama laa njëkk a génn wan leen ne maa ngi seen ginnaaw mag laa mais maa ngi seen ginnaaw maa ngi leen di soutenir de tout parce que peut-être ñun ñoo ko waroon xalaat xalaatuñ ko yéen ngeen xalaat ko en tant que jeune non seulement rafetlu nañ ko mais nous sommes derrière vous de jàppale leen su lu ngeen mënti def en lu ngeen mënti dem ñun suñu ko yëgee ñu ngi si biir ñu leen gërëm di leen sant comment début bi baax c'est un bon début léegi nag il faut que ngeen def action ñu pérenne pere nañ ko pérenniser quoi bu ñu def tey suba ñu def gannaaw suba ku nekk toog def sa activité set moom mooy jiitu si lépp suñu diine set la ñu pour nga am une bonne santé set il faut nga set kon nag set mooy base lépp di ngeen ko commencé ni ñu ngi leen ñaanal yal sax daal yàlla jàppale leen lu ngeen si set rek yàlla defal ngeen am si lu ko wasee jot de toute façon ñun mag ñi ñëpp ñu ngi seen merci